waaw instant bi de moom ni ñu ko gisee côté bii nag moom travaux yi moo tax xam naa ne yoon bi nii la mun a mel quoi waaye nañu gars yi di jàppale rek om de nii xam ne gars yi fu ñu ñibbi day sori ñenn ñi dañuy dem yëmbal ñii Kër Masaar ñii ay buun ñii géejawaay xam nga tamit nañu xaw a tolloo rek nit ñi quoi. autour da nga jàpp ne heure bi dañ ko war a pousser ba 22 heures aussi quoi. waaw loolu bu amee moo gën ndax am na ci ñoo xam ne kon démb autoroute bi ba mu amee soog. ñu bëri mënuñoo ñibbi ndax xam daanaka ñeen ñi ay ah. vingt une heures ñii ay vingt deux heures la ñuy gis seen kër nga xam tamit Sénégal tëli yi bëri bëri bëri na waaye tamit dafa xat tëli yëpp noonu la mel ñun daal ñu ngi ñaan nguur gi daal bu sañoon daal mu yokk ko ba vingt deux heures nit ñi mun di wàcc di dem seeni kër di ñibbi daal loolu laa ci xam. mais am na ñu ñu tasal aussi ñu ne ñu Sénégalais dafa dafa dafa négligent même boo defee minuit sax dina am ñoo xam ne dañuy tardé. kon kon niñ ko waxee ni vingt et gis nga gars yi bu ñu ko waxee ñëppay takk jug dem ñibbi kenn du taxawaalu fen ndax man fi may liggéeyee di défoncé instant bi nii nii cinq heures ba jotee nit ñee ngi raxasu di ñibbi ndax da ngay am problème oto da ngay wàcc cinq heures ah dix huit heures ngay am oto nekkaat ci oto bi amul téage bi fekkaat la fa tamit xam nga loolu tamit dafa xaw a naqari ñoom bu ñu ci jàppalee defal ñu ko vingt deux heures waaw moom fu vingt deux heures jotee moom ñëpp incha allah dina leen fekk ñu dugg seen kër ndax munoo jógee Dakar 18h lu yoon bi xat-xat-xat 10h wala 9h30 dana la fekk seen kër waaw. bi nii comme ni ngeen ko gisee ñu ngi bunt buntu foire bañ ci gendarmerie bi ñu ngi fi fekk waa ju baax ji ñu ngi koy laaj lan la fiy def. xanaa sonn rek bëgg a ñibbi jaaxle rek instant bii nii parce que maa ngi maa ngi war dem ba Pikine te presque une heure de temps moo ma dese uh-huh. maa ngi wàcc depuis 19h mais gis nga ba instant bi maa ngi war dem ba Pikine ku ne na ne instant bi askan wi sonn nañu. di ñaan yàlla nag ngir yàlla mag yi nag gestu askan yi parce que vraiment sonn nañ la ñuy dund na trop trop trop maa ngi ni instant damay toog nii di xaar ku ma yóbbaale parce que su ma jëlee oto du dem kon finalement sama benn gaan wéeru moto xaar nii pour mu yóbbaale ma mais lan mooy nekk solution bi. non instant bi Macky gestu askan bi rek mooy solution bi parce que ay taali pono ak du solution bi solution bi daal mooy Macky gestu askan a teel a waaw vraiment li ñu ñaan daal mooy Macky gestu askan bi daal loolu la ñuy ñaan voilà ba tey bu ñu yokkoon heure bi daal vraiment dinañ am solution tuuti au moins ñun ñu sori ñu mën a ñibbi parce que instant bi li daj metti na trop waaw moo tax ñuy ñaan Macky moom mi nga xam ne instant bii nii mu gestu askan wi xam ne instant bi jeunes yi sonn nañ booy wàcc da ngay wàcc ci activité sonn benn instant doo àggee sax doo tal daal parce que vingt deux bërki dem maa ngi wàcc àgg dawal compréhension kon mu gën a metti waaw instant bi daal askan wi sonn nañ bàyyi sonn nañ trop vraiment li ñuy jànkoonteel metti na di ñaan yàlla mag yi mu gëstuñu waaw loolu daal mooy wax ji instant bi 12 jours la mais 12 jours instant bi bàyyi est bu ñëwee duñ ko yokkaat defaat un mois encore ñun kay instant bi bàyyi xamuñu fan lañ jëm <laughs> mais dara ñu bàyyi lépp ci loxoy suñu borom rek bàyyi waaw mais vraiment metti na quoi jaan ñaan mët yi daal mu gëstu askan wi quoi yéen tam ñu leen di jaajëfal bu baax quoi seen taxawaay rafet na vraiment jafe-jafe ngeen fi am ci mais apparemment y a des problèmes de transport. loolu moom euh, Sénégal yëpp xam nañu ko parce que dafa doon loo xam ne ñun ñi nga xam surtout ñun ñi nga xam dañ manque de moyens amuñu ay demukaay comprendre nga loolu état daf ñu war sóoraale parce que dañuy jóge ñenn ñu jóge boo ba ay côté ñaajo euh, sama consort bi ñu ngi jóge Kër Massar ay yeneen di ñëw fii pour que ñu gis oto bu ñu yóbbu sax même bu couvre-feu amee amulee euh, yombul fu mu toll ni su ma la waxee à seize heures et demie 17 heures ba léegi nit ñi ñu ngi taxaw ñu dem bon man ci sama gis-gis mooy que lan état ñu jëm xool naka la ñuy def pour woyofal xam ni am na ay nit ñoo xam ne bariwuñu doole xam nga ñëpp amuñu matuwaay pour dem ñëpp dañ mel ni man ñoo ëpp doole si réew mi surtout ñi nga xamante ni dañuy xëy di kolo kolo ji Sénégal ñi fiy liggéey si état bëriwul de loolu bëgg naa état ñu xam loolu bu baax xam ne ñuy liggéey si état bëriwul fii ñi fi nekk di jéem a góorgóorlu tey wàccaale benn junni war ko yóbbu sa ay yaay wala sa ay kër ñu jéem xool comment on faire moo fi am amuñu doole jooju àggaguñu foo xam ne dañuy tëj nit ñi heure bi parce que tey man su ma jógee ko fii heure bi bala ma àgg ay Kër Massar euh, ban heure la vingt deux heures ou vingt trois heures ok loolu nag vraiment doon na loo xamante ni euh, mu doon loo xamante ni ñu ngi koy métti lu bu baax mu doon loo xam ne métti na surtout ñun ñuy jógee ay côté yooyu di ñëw fii ok jàpp ne heure bi dañ ko war a daw ci vingt deux heures wala vingt trois heures jëm kaw sax buñ ko munee def moo gën parce que boo xoolee vingt et une heures dafa gàtt c'est trop court dafa gàtt torop torop fii boo jógee ko fii à vingt presque ban heure ngay dem Kër ma Massar léegi bu la gars yi carré boole la ci yoole yoole yi dóor la foofu def la leneen fekk da ngaa wuti say dépense xam nga day métti vraiment loolu ñu ci sóoraale grand loolu moom dañ koy dañ koy wax mu dool lu ko xamante ne lu ñëpp di jooy la waaw man damay ñëw nekkal fi taxawal fi ñi nga xam ne néew doole moo tax je suis pas politique nekkul pour leneen nag pour sama consort bii moo tax waaw vraiment. léegi nii pour mën a agsi à l'heure bañ ko ma liif moo tax ma daw ba fàtte samay dàll te maa ngi nii lafañ laa moitié nit laa instant bi nii mais nga xam ne damaa xam damaa daw ragal policier yi rek gis seen ñu commencé di wàcc rek ma daw ba fa sama dàll maa ngi nii di dugg sama koñ heureusement bu nekkoon loolu damay fan ne côté kii laa jógee fan ok côté fan ok laa jógee ñëw ba fii dama ko dox ba fii aw ma oto aw ma oto maa ngi nii maa ngi nii mais mais on sait pas en fait y a amul sens en fait pour moi je pense que y a pas de sens de d'arrêter euh, de dire que les gens restez chez vous à partir de vingt et une heures jusqu'à six heures du matin ça sert à rien vraiment déjà lii nii rek regroupement bii nii rek pour man moo gën a fort Euh, lu ñu lu ñu def nii nii xoolal nit ñi nu ñu feesee si car rapide yi xoolal nit ñi nu ñu nekkee fii di lijjanti ay taxi xamoo nit ki sax da ngay jéem a bokk bokk ak moom démb am na benn dame bu ma bokkal léegi nii oto tey ce matin mu ne dañ ko naxoon yóbbu parce que le gars daf ko romb ne ko foo jëm wax ko kaay ma yóbbaale la di ko nar a rombuloo këram xam nga loolu risque yooyu noonu yëpp da nga koy jël parce que yaa ngi daw policiers yi bëgg sa jàmm sa jàmm yaram mais après il n'en vaut la peine mu ngi ñoom amuñu jàmm ñun amuñu jàmm ñoo ñu nii si mbedd di daw vingt une voilà amul sens waaw mais c'est vrai mais on est en Afrique on est au Sénégal pire encore c'est un pays qu'on peut pas confiner de un mënuñu def confinement total déjà vous êtes d'accord non mënuñu def confinement total mais couvre-feu yi nii ça sert à rien oto amul dañu yokk oto yi kon dañu yokk oto yi nit yaa ngi jàngi nit yaa ngi liggéey dañu yokk oto yi donc man daal pour man loolu la war a def yokk oto waaw jëm a xool nu ñu joxee nit ñi liggéey yu normal voilà nit ñi mën a dem à l'heure ñibbi si à l'heure sans problème avant vingt une heures doo fi gis benn problème bu mel nii gis ngeen tali bi nu mu mel donc voilà c'est compliqué pour tout le monde. c'est compliqué yow moom di la dal métti na parce que vraiment daw nga ba jànk say dàll. ma lii kii daw na ba ñàkk dàllam ndax bañ policiers yi dóor ko vraiment métti na ne na Sacré Cœur la dawee ba fii. sonn nañ trop ñi ñaay bëgg a jël oto pour ñoo jël oto waxal Macky Sall mu dimbali ñu te tax. pourtant loolu mooy seen sëb nit ñi ñu ngi bëgg a liggéey mënuñoo liggéey nit ñi ñu ngi bëgg a voyager mënuñoo voyager ah nañ dimbali ngir yàlla yàlla tax dimbal bi nañu bàyyi ñun ñu continuer si liggéey di def ñu ñu continuer si liggéey ñu ñaari nit bëgg am oto mënuñoo fexe ba oto di njëkk a repousser heure bi waaw ñu yokk heure bi ba vingt trois heures wala vingt deux heures baax na garaawul nañ dimbali si loolu te yàlla tax loolu laa amoon lu may wax merci. ni ngeen amee problème. waaw waaw waaw ñun daal grand fi ñu toll nii wax dëgg yàlla. Euh, liggéey bi métti na ci ñun lool lool lool sax wax dëgg yàlla dëkk bi xat na foo ko takk passé na ko da nga yeb client mais pour nga dem sax problème la yàlla xam ne ko da ngay sonn bay bëgg dee en même temps même client yi man wax dëgg yàlla dama leen a yërëm parce que client yi tamit fi jëm sori na te it wax dëgg yàlla dëkk bi néewul paas bi seer na ci ñoom vraiment bi ñu sañoon daal maki saal mu jéem a seet beneen solution boo xamante ni si dinañ ko seet muy solution bu baax ñun ñëpp ñu tegu ci bu ko defee feebar bi mën a dem parce que feebar tamit li gën a métti ci feebar mooy comme nii mu demee nii waa parce que lii tamit feebar la de bëgg dem mënoo dem bëgg am dépasse mënoo am dépasse ah metti na de wax dëgg yàlla waa feebar ci kaw feebar la nañ jem seet beneen solution waaw même waaw même bu ñu demoon vingt trois baax na vingt trois heures et baax na yaa ngi dégg su boobaa kenn ku nekk da nga mën a àgg fa nga jëm lu mu sori sori di nga mën a dem fa nga jëm waaye wax dëgg yàlla nii soo ko defee neuf heures neuf heures dafa gàtt te dëkk bi dafa xat ak chantier yu bees nañ jéem a seet beneen solution grand man de loolu laa xam wax dëgg yàlla waaw waaw waaw baax na incha ci kàttum borom bi